na dem demal demal sa yoon demal sa yoon demal sa yoon laa la wax non non bul def loolu noonu du la demal sa yoon demal sa yoon sa pancarte demal sa yoon jëlati xoolal waay xoolal doo am dara ana pancarte yi na dem sa waay dama leen ko fi mu am dara. amul problème filmé ma. mais eh, fii États-Unis la. États-Unis la bët man provocation am naa droit. non non that's not provocation. provocation la I just came from. where is your where is your proof of right da nga ñëw ba si ñun. fii ah, ah, provocation la. non ah, non non mënoo fi ñëw ba si ñu côté. this house oh. belongs to Sénégal. I know it belongs to Sénégal. hey oh, amul pancarte la yaa ngi fekk fii ma Macky Macky Sall moo fi nekk. you know what I'm saying. my money ok you know you know gonna give you the shit. waaw loolu Macky Sall moo fi nekk dama sa yoon. fini c'est un pays de la démocratie. Mais pas. xolal lu lox. Xam nga fii di Sénégal. Am du Sénégal. Mais you know what? It's a provocation. C'est la provocation. Nañu jow ba nga sotti kondo. Waaw. Provocation ñëw leen. Fii boo la fi jël la fi am dara. Ñun lu leen doon may duñu ko duñu leen ko mayati. Fii Macky Sall fi nekk. nekk ci dëkk bi tekki wala nday dara ci dëkk bi. di wane ay image naan yaakaar Macky liggéeyul Sénégal ah fii États-Unis la ñoo bokk loi bi fii ku fi taxaw di saboté dañuy taxaar sa ndey. waaw yow